Franc Bombardier. kenn kay daan kenn ki rek. Ah, ma junni ba. a ah, la fay. Ah, ma balaa mos a soo ba léegi kenn kay kenn ki nag alaaj. mais dañoo gis mu nekk grand contre petit. Bombardier ñëw loolu yàgg ci làmb. Bombardier ñëw na comme nam daan ñëwee bis dootu ko jaaxal. borom bi di ko mbagg boo xaar xolam magasin nga ciy fekk. mbër mu ndaw moo gis mu daane mbër mu mag rek moo nekk ci boppam. tey tey Franc nan la mën a def ba daan. tey jox Bombardier cër. Ah. jëm ko déplacé. ah yow bu bëree jeunesse nii. waroo nga ak ñenn ñi analyse de. na ko jox cër na def li mu daan def. mais na jox Bombardier cër. Bombardier li Franc bëgg moom la Bombardier bëgg mën. Bombardier dafa bëgg la. ak yow jaay la doole daan la Franc nag néewul doole mais dafa déplacé Bombardier parce que Bombardier problème déplacement rek la am da ngay nëb di génn di nëb di mun na def kàddaa bi mun na mun na mun na déplacé wu nga bu suulee ay tànkam dox Franc mën naa am problème. non Bombardier moom moom amul lu muy amul lu muy wuti Franc mooy xale moo bëgg Franc moo war a bëre moo war a xeex xeex bi moo war a daan daan bi mais Bombardier du ko ko yombalal. est loolu mooy yoon Franc. moo bëgg moo bëgg a yegg. Franc yow bu ñu nee pare Franc xaar looy doo xas. mooy amul muy xaar. amul calcul. mais nag buy dem na xam fi fu muy dem na dem ak détermination mais bu mu demee rek falaa falaa nii Bombardier néewul doole te am na expérience voilà foofu lay waxee. Pikine amaat bu rëy la 5 Sa Thiès muy komba boo xam ne combat bu bëri coow ndax ñëpp xam nañ ne ñoom ñaar ñëpp a mën a bëre Eumeu Sène nag xale yi kenn réussiragul ci moom mi ngi door a am Sa Thiès. Eumeu Sène tur wi dafa teel a bëre. waaw mais du mag. moo ne da koy wax de. mag dafa teel a ma amee 17 ans la nekk champion d'Afrique ba pare dafa teel dugg ci bëre ay magam. Eumeu Sène bi mu may bëre Khadim Ndiaye bi mu may bëre Tapha Gueye bi muy gën a ay Gris Bordeaux ay 2004 xale la léegi nag actuellement nag bokk na ci doyen lamb ji mais Eumeu Sène mi ngi soog a toll ci digg doole waaw loolu la wax barki démb. loolu am. ci sama digg doole laa. góor waaw. 40 ans 45 ans sa digg doole ngay toll. moo tax Sa Thiès pression bi dina bëri ci moom. dina bëri ñaari revanche. ñaari Balla Gaye yi ko Eumeu Sène daan. ak bu dina ko bëree waale. ak bu Lac de Guiers. te Boy Niang mooy poulain mooy liet naa Eumeu Sène. waaw waaw. moo tax na lool nag. wallaay ma gisee Balla oh. mbokk ndey. mbokk ndey koy jur xam rek. mu gëstoo gis Balla xelam day dal. waaye daal loo ci di dégg. mooy li ma waxoon ci moom laa wax ci Sa Thiès Eumeu Sène rek gannaaw góor ñu rek. da ngaa Sa Thiès dem. moo war a wuti. xale boo dëkkee mag ba jël seen combat xale yow yaay wuri xale du xaar. bu ne Sa Thiès li muy bëree loolu la am seen soxla mooy bu ne arbitre ne par mu daw song la est ce bu demee dina ko arrangé. loolu forum la. cinq minutes yi. waaw bërëb bi Sa Thiès cinq minutes am kenn attunu ko. lu mu ko bëgg a def da koy def. waaye nag bu alam kontaan naa doon. fay ma mbay jox ma junni. naa la jox ñaari junni. xaaral ma ñëw. naa la junni dañ ko dagg daggee. ma joxe junni tey. boo ëllëgee ma joxe junni. maa ngi ñëw. xam yombalal jeex na mooy sama nijaay mooy sama kot mooy sama chef mooy sama maître. nay joxe àllarba àllarba ji lay laaj. mas dinaa joxe àllarba amul benn problème kontaan naa doon. ñoo far. merci beaucoup. mais mas. Mass ba tey ñi ngi arène nationale tey nag xam nga ne Franc mooy bëri ak Bombardier ku wax ñaa xarañ loo wax Modou Lo te ku wax Modou Lo wax Franc ñaa ci loo ne. maa ngi sant yàlla bu baax a baax sant Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu. Ah, tey nooy dundee làmb ji Franc Bombardier. ànd ak kontaan di ñaanal suma mbër bi ñu naan ko Franc ak. Euh, Tala Talfa yàlla may leen ndam bu sedd buy incha allah rajo barke Seydina nekk mbër mu naqaree bëreel. waaw Bombardier nag lamb abiyaas la rek lamb ji moom du abiyaas lamb ji carte noire la. looy wax ni. non yow it. Bombardier mii ñu gis. dama koy daan de maa ngi koy wax de. looy wax ni fu ngeen ko teg. incha allah dama koy daan ci entraînement rek. mais Bombardier mii gis néewul doole de. non mais garaawul waaw ba kanam dañuy dëgg la. kenn ne na hmm. tàkku saanam ak Modou Lo hmm. ñii na tàkku a non xam nga Franc moom jàmbaar la te mbër mu mbër mu neex àndal la mbër mu gëm boppam la mbër mu respecté entraînement mbër mu ne yoon la yàlla ko yàlla yëgal ak jàmm incha rabbi. mais ñaa naka anniversaire. anniversaire ba neexoon na trop macha allah. BSD ngeen def. non BSD waaw avec le golden boy de la musique sénégalaise Mar Yacine monsieur Bigué monsieur Bigué Mar kenn du moom yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla sàmm. boole koog jabaram boole koog ay nitam ku waaw BSD moom du caaxaan. la koy liggéey. rek. ñang mu xarañ loo ngoog kontaan nañu. yi teew yëpp ak ñu nekk seen kër yi ñu seetaan ak ñu ngi déglu di jaajëfal ñëpp di ñaan ñëpp jàmm. yéen wax daal jàmbaar kontaan na ndax organiser nii woy si la. rawatina mu réussir rek mbégte la daal ma ne tey jàmbaar sant yàlla bu baax a baax. seen poulet bëre léegi daanu muy Talfa. waaw mais noonu la dañ koy encouragé di félicité Youssou Ndour bëre moom ku bañ a daanu rek bul bëre Talfa ku xam-xam ne champion la di bëre grand frère Youssou Ndour Youssou ci la ko daan mais dañ defarwaat rek parce que ba xale bu ndaw dañ naa 98 la juddu affaire yi ci doogul sax quoi na defarwaat li si kanam moo ëpp quoi. tey Franc mi ngi ci géew bi war a dajeeg Bombardier du combat bu yomb wax combat bu yomb mu amul Franc bu ma jël xam-xam bu intense la ñaan yaa rek may ñu ndam incha ak expérience boobu. waa doyam moom ba daan ko rek. jàmbaar bu leen jëm projet actuellement nag Royal la ñuy xaar. mais bëgg nañ fii ak fin saison bi daal. bu doo yëngoo. mais dina Modou Lo bala muy ñëw faaw man ngeen doon benn bu neex de ah. ah. waaw incha allah. waaw day neex sa bés. incha allah seen journée day allah. kontaan nañu. jaajëf merci mon frère. jërëjëf. képp amu si ndam. waaw comme amu si ndam nag mu bàyyi moom moo koy arrangé. mais bu continuer di may xale yi chance xam day gën a metti si moom rek nag xale yi ay xale lan te danoo am doole danoo am ginnaaw. danoo gis ni combat bi tey doole moo uh-huh. ba jaaxal mosuñu ko gis. non boo gisee jimikaay Bombardier tey ah ak jimikaay Bombardier yu njëkk ya nga xam ne wuute nañ. voilà nga xool Bombardier tey li mu indi nga xam ne Bombardier mii tey boo xoolee dafa indi jimikaay boo xam ne mooy prénance lamb moom la indi tey ndax da lay leer ne Bombardier lamb ji fere wu si kon déjà pare na si lamb léegi yow daan nga ay mbër yoo xam ne am nañ tur bëre nga ku nekk may nga benn xale chance mu daan la nga mayaat beneen xale chance mu daan la kon nga arrêté rek moom moo fi sës après ay écuréem am na ay booy yoo xam ne ay xale lan am nan kattan mu jéem a jàppale booy yooyu pour booy jéem a avancé si loolu kese la man soo gis waaw def nañ lépp si lamb voilà kon voilà kon kooku jaanam wàcc na léegi li ko dese mooy mu tekki ngembam jàppale booy écuréem yi booy dem loolu rek moo fi sës jërëjëf voilà jërëjëf ok merci grand kontaan nañ